à euh, COSEPS le collectif des chefs d'établissement privé de santé parce que le ëpp atteint a ngi écoles ñaar wala école manipuler presse il faut le dire de créer le doute ci les étudiants les parents parce que boo leen 90 euh, des écoles de santé ne connaissent pas wala taxaw nan, ministère de la santé organisé des diplômes dans la santé man dama yaakaar yooyu ay waxu caaxaan la parce que docteur Seck wax na ko sànq tailleur bi bu juumee mun na dem jëndi tissu wante agent de santé bu juumee c'est irréversible donc agent de santé yooyu yéen journaliste lay waxal ëllëg boo leen demee hôpital yaakaar ngeen ni ka fay fekk war na nekk koo xam ni am na toutes les compétences requises pour mun leen faj te ñun li ñuy woowee compétence requise mooy koo xam ni formé nañ ko ci école yi ba pare mu génn ministère évaluer ko ni kii kat mun na nekk infirmier wala mun na nekk sage-femme wala mun na nekk assistant ñun loolu rek la ñuy xeex. au-delà que ñun ay directeur d'école lañu ay acteur de santé lañu mais nous sommes aussi des citoyens sénégalais donc waruñu d'accord ci lu yàq système de santé bi au Sénégal et je pense que ministre bi ba mu ñu rencontré wax na ko nee na nekkul fi ma sàmb fi ma demba population yi fi nekkal ñun tamit population yi bëgg nañu ëllëg ñu bañ am dara lu ñuy ak population yi en ce qui concerne le domaine de la santé moo tax ñu ne dañ leen mais balaa mu nous ni na dem pratiquer ministère évaluer ba xam ni ko def am problème résultats yi catastrophique c'est vrai que résultat en santé tamit waru yomb loolu mom il faut ñu te deug catastrophique na mais une des raisons bi tax résultat est catastrophique moy xalé bi fay jang ba paré mun na toog un an avant muy def examen d'état da fay contribuer beaucoup ah, si xalé bi di désapprendre motax ñun tamit ñuy ñaan ministère na def effort parce que depuis Covid bi quand même on était resté un an sans faire d'examen ñing kay koy résorber mais ba tey des na le ministère def effort ba nga xam ni étudiant bi bu jàngee ba mois d'août le mois de juillet immédiatement nous organiser l'examen. examen loolu tamit ñu ngi koy ñaan ministère. di wax ni euh, COSEPS d'accord na ak audit nous nga actuellement dans toutes les écoles parce que quand même bu ñu audité wul école ne duñu pas a xam lan moo fa baax ak lan moo fa il faut ñu auditer ko. Nous avons qu'il ni am nañu problèmes amélioré ce qui existe aussi il faut voir l'existant comment l'améliorer encore euh, Lorsque nous avons ñu ce point de presse là pour voir les ni ñun concepts pour examiner létat nous ñu organiser les ministères concernés parce que là il faut nous rappeler ko euh, euh, je ne jette le disque dessus personne mais du temps de Cheikh Oumar Anne en tant que ministre de l'enseignement supérieur chaque année ay communiqué pour voir en ce qui concerne la santé un diplôme d'état organisé par la formation professionnelle et par le ministère de la santé valable on a des communications là avec nous lors l'enseignement supérieur musa wax Donc nous avons ba est-ce que tu as dit au niveau de l'armée l'armée a des écoles qui forment des cadres supérieurs est-ce que tu as dit que ay armée dañu a des écoles privées, privées, ay enseignement supérieur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas. ko fooyee ci sécurité muy sécurité ak santé population la ñun dynamique qui Nous nekk moo pour indi éclaircissement je vous remercie